xibaar 24 seen jotaayu xibaar 24 sur 24 seen télévision si poste ngeen di am ay xibaar si anam yi gën a wóoree gën a leer gën a gaaw di leen di gunge si biir médias sociaux yi panel yi page yi groupe yi Facebook Twitter chaîne YouTube xibaar TV. Ousmane Sonko si Touba leaderu Pastef doon nemmeeku si xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké yi moom nag feddal na yaakaaram ak kóllëreem si ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk kàddu yi si réew mi nu jaare ko si tarixa wala kilifa aada yi ndax jàpp na ni ñoom de fi ñu toll nii ñoo gën a dëgër institution yi nga xamante ni moom la kilifa àdduna yi yore yi nun nag ñeen ñëpp xam ngeen ni amuñu institution gis ngeen li xew ci assemblée nationale bi man falaa nekk mun naa leen ne assemblée nationale amul Sénégal gis ngeen li xew ci justice bi amul sénégalais boo xam ne tey rafetlu na justice Sénégal ni muy doxee waaw lan moo tax Sénégal nërmaluwul ba léegi te amuñu ay institution mooy institution sociale yi ñu yàlla jox mooy ñoom ñi yàlla teg fi te mandat bàyyiwu leen fi te sénégalais ay millions de sénégalais jox leen cër jox leen nopp jox leen seen dënn ba réew mi su naroon jaxasoo su ñu waxee benn kàddu lépp mun na dellu siwaat ñoom ñooñ ñooy suñu institution. honorable député Ousmane Sonko. ne nag li mu wax mi ngi ko teg ci méngale réew mi. ak lenn si réewu tugal yi. soo demoon tey Amérique li tax Amérique dëgër mooy Amérique dañoo am ay institution yu am a am doole ñu ne parlement bi am na doole Sénat bi am na doole justice bi am na doole ba tey président bu jël décision magistrat bi gën a tuuti ci Amérique mën na toog ne décision bi dama koy bloquer parce que dafa violer constitution bi. loolu mooy doole Amérique loolu mooy doole France mooy doole Allemagne. ba tey ki fi nekkoon inspecteur des impôts si programme am bi muy amal si élection présidentielle yi diine gëm-gëm ak pas-pas nekk na lu muy suuxat ba moo waral sax nag budget bi dina leen cëral lu yaatu. moo tax ñun ci suñu programme politique dañu ne relation rapport entre diine ak état dañoo bëgg mu doon lu ñu institutionnaliser waratul doon loo xam ne rek koo wax ci Sénégal mu ne la laïcité laïcité te ku soxla nguur ñëw raam dañ ko war a waratuñ ci am complexe dañ ko war a institutionnaliser bokk na ci mesure yu war a mën a indi institutionnalisation boobu mooy sénégalais ni mu soxlee faju soxla dem école soxla ay infrastructure soxla courant soxla ndox sénégalais noonu la soxlawee pas-pas ak diine kon suñu amee budget ne budget bi mat na trois mille milliards war nañ mën a ne cent cinquante milliards yi dañ koo def budget culte budget diine gi ñu am agence wala ministère boo xam ne loolu mooy liggéeyam ñu ne lii dina dem ci njàng mi ak diine yëpp nag laa wax lii dina dem ci xew-xew diine yu mag yi lii dina dem ci lii la dem ci laa waaye mënuñu continuer sous prétexte que laïcité la ñu ne tey budget Sénégal doo ci gis rubrique boo xam dañ naan lii jagle nañ ko diine lu dul bàyyi nañu ki yor réew mi mu yor ay maletam léeg mu jaar fenn joxe waaye nag yëkkati kàddu politique si réew mi ak processus électoral bi na front bi nga xamante ni moom la opposition bi tënku nekkat tey jii la gën a dëgëral taxawaayam. boo écarté Karim Wade écarté Khalifa Sall écarté Ousmane Sonko écarté Massamba ak Mademba bu ko defee nga tànn say candidat yow utal leen seen parrainage ñu ne loolu élection la xam nga loolu sénégalais yi duñ ko nangu ñoo bokk front bi ñu solidariser wu entièrement te lépp lu xeex bi laaj bu soobee yàlla dinañ ko ci xeex parce que suñ ko seetaanee. defe naa euh, boo moytul géew gi moom rek a fay nekk te loolu Sénégal mënu koo nangu ndax sénégalais yi dañoo doyal ci moom ci ñàkk mënam ak ñàkk patriotisme mooy ñàkk bëgg réew mi ak yorin gu sell di gi ñu yore réew mi ci juróom juróom benni at yi visitu honorable député Ousmane Sonko si Touba jaare ko si responsable parten bi nekk fii di Serigne Bassirou Mbacké ak Mbacké Mbacké yu takk yoo xamante ni sax jamono ji ñu ngi koy jàppale waaye tamit ay relation am biir kër xalif bi Serigne Mountakha Mbacké dalal ko moom ak délégation am ñu waxtaan si réew mi ak si élection yi nu jëm Ousmane Sonko profito si indi ay leeral ni front social bi fi njëkkoon ñëw si njiitalu Diop Decroix te ànd si woon dafa fekkoon mu amoon empêchement waaye nag yable woon xibaar 24 seen jotaayu xibaar seen télévision si poste ngeen am ay xibaar si anam yi mu gën a wóoree gën a leer gën a gaaw di leen di gunge si biir médias sociaux yi panel page yi Facebook Twitter chaîne YouTube xibaar TV.